fi ñu toll euh, tembe euh, euh, de plainte dox na ci diggante moom ak Thérèse fay mu mel ni rek loolee ma nga ca dikk mm. ci ay foncier yi nga xam ne rek Cheikh Bara waxoon na ni moom Thérèse Faye daal di na ko am mu mel ni rek loolu jox na ab coow lu bëri ci seen diggante bu mujjee sax ci loxo yi yoon mm. fi ñu dañuy déggandi rek yoon daal di rek wax ana lan la fan la dëgg féetee xalil euh, mu mel nii rek euh, lool it nekk na loo xam ni fi mu toll ñëpp ñu ngi ciy wax euh, ci li nga xam ne mooy plainte bi dox ci diggante Thérèse Faye ak ki nga xam ne rek mooy Cheikh Bara Ndiaye. Mm-hmm. Euh, treize heures su ma doon wax ay waxam damay wax ni dafa teel. Mm. ci moom pour muy porter plainte. Mm-hmm. ki nga xamante ne moo di Cheikh Bara Ndiaye. Mm-hmm. président fu mu jëm. Mm-hmm. parce que nag. man <laughs> de koo koo ñuy bàyyil. président <laughs> am na kum leen fi bàyyil. avant ah. moo dem tegoon na Amadou Ba. président kay dalee na tey moo tax ma ne daal. xëy na peut yooyu sax bokk na ci. Euh, koo ñuy bàyyil ak. ak fu ñu jëm ak yooyu. Mm-hmm. bokkoon na ci li tax ma lay naan. Mm-hmm. Euh, porté plainte Cheikh Bara Ndiaye dafa teel ci moom lool. Mm-hmm. li nag euh, ñoom dañ leen war a càmbar ba xam seen gestion lan la woon. te moom dénkoon nañ ko. Mm-hmm. am na yoo xamante ne ay ndombal tànk moom moo ko yoroon. Mm-hmm. te yëf yi nag dafa am tournir bi mu def. Mm-hmm. entre 2012 ba 2024 gi. da ca gis ñoo xamante ne tey ca lañ nekkoon tane la ndey astu. waaye à un moment donné nag nekk nañ ci loo xamante ne. yàlla moo leen ko baaxee. noonu laa mën a wax. nañ remercier yàlla en seen yëf baax na. mais nag ni mu ni mu ñëwee gaaw na mm-hmm. gaawaay goo xamante ne yàlla teg na ci loxo mm-hmm. am na solo am na ah. solo tontu Maodo am na nañ sant yàlla ñoom ñu sant yàlla comme changement am na mm-hmm. nañ sant yàlla waaye Cheikh Bara dafa nekk koo xamante mësuma koo gis mu wax dara. Mhm. te loolu amul. Mhm. man moo a ci jaaxal. Mhm. te bu ñu demee ci yoon. xëy na moo tax mënal na très mënoon naa tey rek. bu ba mu set dafu dara. mën na dellu si waat li nga xamante ne Cheikh Bara mu ngi ko doon waxal. te su boobaa nag. Euh, dina am li nga xamante ne fa la ko teg. waaye dafa am loo xamante ne laa ciy ragal. mu porte plainte ba pare. yëf yu tourné ci kawam. loolu daal nga ciy ragal. ah loolu la laa ciy ragal te lu ne mën na am nag. ay ca mën na lu ne mën na am tontu Maodo. <laughs> waaw xam nga tam <laughs> euh, droit sénégalais fi ñu ko dimbalee liggéey. Mm-hmm. moo tax ni ñu def nii maa ngi koy encouragé. Mm-hmm. parce que diffamation mooy xaaju sutura. Mm-hmm. même bu Cheikh a amee dëkk. dañ koy sanctionné. ndax ni ñu bind droit bi. xaaju sutura mooy diffamation. même bu ko amee. weer yi nga yaa ko moom. man la weer yi moomoo ko te fekk yaa moom. dama laa diffamé. loolu mooy diffamation. ak lu mu ma Cheikh Bara mën a am. bu ñu defee droit rek. dañ koy sanctionné. waaye nag. dama yaakaar ni bu ñu nee diw am na na prouver ni man aw mhm. li gën état mooy procureur dafa war ubbi enquête benn mhm. Mhm. par rapport ak Cheikh Bara Cheikh Bara ne ko yaa am lii. mën nañ sanctionner Cheikh Bara. waaye nag. avant de sanctionner Cheikh Bara xool yi moom li am ba pare. moo tax ma naan la daal ah, moom laa la wax. sa Cheikh Bara moom. xool gestion ci droit moom. il sera sanctionné ndax loi bii. fekk changé wuñ ko. loolu la demee moo tax li dialogue bi ñu def nii. am na solo trop. am na solo. Mhm. parce que ko mënu ma ne gis yow. Mhm. yaa moom lii ak lii ma xam ne yaa ko moom. Mhm. ba pare nga porté plainte jàpp ma. dëgg la. loolu du yoon. waaye bi ci des. kii fa xam ne président foo ñuy loo xanaa xamul yàlla am na. <laughs> dëgg la. elle savait que yàlla am na amul. président loo ne Fra nii nga ñuy def loo ñuy bàyyee la président loo ñuy bàyyee la. rang nga ñu tuuru. ndeysaan ndeysaan. koo xam ne juddu woo ci dara. nampoo ci dara. tey nga dem ba nekk ci benn zone de confort. ki ñu dàq réew mi tos réew mi ñu dàq ko génn ko réew mi. Mhm. nga naa président boo demee koo ñuy bàyyil. ana yàlla <laughs> ana yàlla. est-ce que newul daa bëgg doon yàlla ñàkk gëm yàlla. Mhm. <laughs> ñàkk am crédibilité. Mhm. ñàkk gëm sa bopp. mënut a passé loolu. kon avec Macky Sall bu Macky Sall demee moom du du du du dund. ñuy bàyyil président daa xam fu mu jëm moom. président daa xam day fanaan day passé day fanaan suba. président daa xam fu mu jëm. président dafa la man. nga bëgg nit ngir président yi. Ah, Macky Sall def ko yàlla. bien vrai que ñëpp xam ne de Dieu de Dieu sur terre. Macky Sall na ba. nekk un bu leen bu ko neexee sax doo noyyi wala boo noyyi mu génn la réew mi soo mu tëj la lu tax nga may xool. dama dégg na ko mais yàlla la yàlla moom yàllaa ko moom. yàllaa xam demee. yow xamoo sa xaw ma sama suba. Uhuh. waaye président loo ñuy bàlleel jël Macky def ko yàlla. tey moom dafa dem ba jël Macky Sall def ko yàlla. Mhm. moo moo moo kii des na ah, ah, le maître la jàngkat bi mhm. maître bi ñu tudd euh, Youm. maître Youm bi ma ko déggee mu wax. Mhm. dama am kersa. ni yaakaar naa ni nit boo juddoo ba am parce que soixante ans. nekk awoka di liggéey. ñu jox la ay fonction politique. fonction yi jeex. ngay découragé xamoo yàlla. dëgg la parce que bu ñu xamoon yàlla président loo may bàyyeel noonu loo ñuy bàyyeel. président nag bu fekkee ne am na xam-xam te na bàyyi naa leen ak yàlla mais comme gëmul yàlla mu wax bàyyi naa leen ak yàlla. <laughs> ah gëm na yàlla kan. non gëmul yàlla dama ne. gisoo ko ci jumaa ja keroog ngeen gëmul yàlla. Ah, xoolal ah, ah, boo xoolee mel ni gileem gileem gu naan euh, euh, euh, ay pot pot ndox yu bari. sooy ndox. Macky Sall yow bu nekkee fii ñemee nga bu julli di nga di nga dend ak moom noonu ak tëni tëni tëni tëni tëni boobu mu tëddi tëni. 4P 4 te loolu tëni 4P la. tëni 4P la la 4P am.

boo demee ba nag ba naag président loo ñuy bàyyeel tey ngay porter plainte. Mhm. droit dañ ko wax. Mhm. droit bi mooy ni ñu ko bindee baara mënut rëcc. Mhm. mais est du euh, lancement d'alerte bi nga xam ni. Euh, loolu décret bi génn est euh, bi loolu décret bi génn est-ce que basé wul foofu aussi pour wax loolu. dafa basé na. parce que da ko wax intention mi ngi mel ne kon bi ñu may nañu gars yi seen seen. seen taxi. verbalement. lancé d'alerte bala am dañ ko dafa am loi. doo awee une loi. Mhm. bu ko protéger bu ko mhm. orienter. Mhm. fekk loi bi amul amul. même bu loi bi amee te promulgué ñu ko loi bi amul def ko journal officiel loolu amagut. ci ay kii la bokk ci ay mébét. moo tax mu wax ko mais amagut. en tout cas li mën am solo mooy. war naa gaaw. parce que gars yi li ñu am war nañ ko xam. waaye nag tey offense daal. ci droit. sàng sutura la. te niñ ko tëggee. mënoo ci rëcc. suñ teel mën a rëcc Ousmane Sonko doon rëcc. ndax Ousmane Sonko mu mënut rëcc moom mënut rëcc. yaa may dégg. Mhm. te ñun du ñu du ñu intervenir ci loolu dëgg. Mhm. dëgg la. booy problème bi. Mhm. droit daal def li mu war a def. waaye ku toog ba jël tax nit ak ah? am fu ma ko teg man. dama porté plainte ni ma diffamation rek ma am fu ma ko teg. mais est-ce que ci côté candidature au lieu que ci nga xamante ne ak lu mën a am loo ñuy bàyyee mooy avenir la. <laughs> fitir la. fitir la. Mhm. ku la wax Macky Sall bi mu jógee ci salle bi mën na dina àgg këram bay choisir kenn non attends. Mhm. kan moo la waxoon Macky Sall mën na àgg këram dina choisir kenn ku ko wax moom dina ko fekke ku ko fekk man dinaa ko fekke loonuy fitir la ñëwagul loonuy ñëwagul. waaw xam naa peut-être nag tonton Maowa. nu mu ko mën a waxee nu mu ko euh, waxee man noonu laa ko gisee. mais miineel gi xam nga yàlla yàlla daal. Uh-huh. du moroom du natt ngo. est-ce que foofu la ko jëlee ak lu mën a am. li lu jëm sa kanam. xamoo ci dara ak noo ko mën a waxee kenn la képp rek dong mu yàlla. dañ koy gis wax jooju mu wax noonu ci kuy sëyi ku ne ci kër euh, nekk fa euh, ba yàgg fa di sëyi sax ñu naan la loo ñuy bàyyee loolu tamit. est-ce que du miineel gaak miineel gaak. non non euh, dañ naa bàyyi <laughs> jox sa jëkkër ni ko. ni jox nañ la ko ay xam ne la laaj mooy parce que bu dee bu ñu bu ñëwaat te deewut foofu la ñuy wax loolu. Mm. waaye loolu ñuy bàyyeel mel ni di nga yéen beneen yàlla. bien ba que c'est un baron. xam nga esclavage dañuy dem ba lu tag yàlla dañuy rek un baron teg ko yàlla esclavage boo xool ñu ko la traite négrière day dem ba nit dañ koy fomenter tourner ko torturer ko ba mu yaakaar ne kii moo bu seen waaj day tiit comme Macky da ko da leen joxoon ba alal ji bari jox dañaa ee eh, sama confort day yàqu te yàlla moo fa nekkoon nag yàlla gis nga fa mu aayee dafa garaaw dafa jël ka ca patron ba mm. couper tête bi dagg tànk yi génne ko sànni ko ca àll ba léegi ñoom lu def nu ñuy def yàlla xam ne li muy def de. Mm. ça ne passera pas en tout cas li ma xam man ci droit couche néew. Mm-hmm. booy waa ji mën cee génn. Mm-hmm. ci diffamation bi. Mm-hmm. bu nee moom moom lii moom moom lii moom lii du sax bu génn ci. parce que ni ñu ko tëggee moo baaxul. mais bu fekkee ne li mu wax dëgg la nag. bu fekk du du du même bu nekkee dëgg. Mm. dañ koy sanctionné même bu nekkee dëgg. moom Cheikh Bara Ndiaye. bu nekkee dëgg. dañ koy sanctionné dañ nga bu indee tur yi. Mm. yi ñu du tee mu dem mu sanctionné ko loi bi baaxul. Hmm. loi bi bari bokk na ci laa yu li war a sensé. Hmm. baaxul dañ ko tuddee sànq si turam. Hmm. d' accord loolu moo garaaw. loolu moo garaaw ayca euh, dañuy daal dem si carte euh, de.